ak sunu gaz bi yéene gi ne na at mu jot Sénégal dina am recette yoo xam ne dina toll ci sept cent milliards maanaam juróomi téeméeri milliards at mu jot Sénégal dina ko am ci pétrole bi ak gaz bi yéene gi ne na xaalis boobee nag li nga xam ne moom lañ ciy def quatre-vingt-dix pour cent ay investissement la yoo xam ne ci askan wi la jëm directement waaye nag am na ci dix pour cent yoo xam ne maanaam ci génération future la jëm ñoom lañ koy dencal yéene gi di suddi ko di jee nee na njiitu réew mi di président Macky Sall nga xam ne ñooy fonctionnaires yi maanaam syndicalistes yi ndax dañoo jàppoon ne pétrole bi ak bi dina tax li nga xam ne mooy salaire yi payoor yi ñu daal di koy yokk Macky Sall nee na leen déedéet déedéet maanaam nag sept cent yi bu leen jàpp benn yoon ne maanaam salaire yi nag dañu koy yokk yéen fonctionnaires yi ak yéen syndicalistes yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy xibaar naan ñu recettes yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci pétrole bi ak gaz bi quatre-vingt-dix pour cent budget la dix pour cent génération future yéen a kaay gi nee na ji nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gi de La Témoin xëy duñu xibaar naan ñu en tout 700 milliards yi commencé di dugg at mu jot yéen kaay gi di las xëy ci lu jëm ci wàllum góor jigéen gi ci Sénégal ak coow li nga xam ne moo ci am ak nag projet de loi bi nga xamante ni am na ay kuréel yoo xam ne ñoo ngi jóg di ko sàkko journal bi ñu xëy fekk fa Aïssata Tall Sall ministre bi ñu dénk wàllum affaires étrangères du mos a am Sénégal di légaliser li nga xam ne moo jëm ci borom ñaari tur yi yéen kaay gi di wal fajri xëy bi ñu xibaar naan ñu Macky sal njiitu réew mi mer na ba maara détaillé président Macky Sall nag mer na li nga xamante ni moo tax mu mer daal maanaam mooy syndicat yi nga xam ne suba bëccëg ñoo ngi grève yéen a kaay gi di réew mi quotidien Assane Samba daan nay xëy wax bu ñu amee loo xam ne war nañu ko wax ci réew mooy scandale yi nga xam ne jamono ci ma ngi mel ni tulleeg màlle ci société publique yi yéen a kaay gi nee na bërki démboo njaay yéen a ngi doon dégg marché gré à gré fi nga xam ne mooy SARA société africaine de raffinage marché gré à gré boo xam ne toll na ci deux cent milliards maanaam neex marché yaa saf yéen a kaay gi mi ma ngi mel ni ñu génn dégg ngeen postu milliards yi nga xam ne moom la ñuy wax ne moom la ñu détourné postu yéene kaay gi nee na fan yi nga xam ne moom la ñu génn doon ngeen dégg crédit mutuel du Sénégal maanaam milliards yi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu fa détourné yéene kaay gi nee na en tout cas daal Sénégal jamono ji nag maanaam détournement bi ma ngi mel ni tulleeg màlle yorin wu bon wi maanaam tong-tong bi séddoo bi pasar pasare àllalu réew mi yéene kaay gi nee na nag lii nga xam ne moo xew postu ak LONASE ak crédit mutuel doy na war génn xeetu doy war goo xam ne fu ko waaye nattaan na koy passé waaye nag li nga xam ne moo jaaxal gaay yi maanaam ki la dàq détourné kookee lañ gën a nag yokkal garaatam di ko jox ay poste yu neex a neex fii ci Sénégal da gis koo xam ne nag dafa détourné milliards yi askan wi maanaam ñu jël ko nag jox ko ay poste yoo xamante ni dafay neex ba maara détaillé maanaam li mu détourné daal li mu sàcc alalu askan wi maanaam dara du ko ci fekk ay délinquant délinquant yi nga xam ne nag ñoo nekkoon ci opposition bi ñoom dañuy daw nag fekki pouvoir yéene kaay gi ne na lii li nga xam ne moom ba pare nag li nga xam ne mooy détournement du samay kàddu kàddu démb la ma ngi ci yéen kaay gi di réew mi quotidien yéen kaay gi di l'observateur daal di xëy nag ci trafic passeport diplomatique yi nga xam ne ñoo ngi ciy tudd ñu nekk ministère des affaires étrangères ak présidence journal bi nee na ñooñe nag am nañu juróom benneelu retour de parquet yéen kaay gi di wal fajri nee na scandale yi nga xam ne am na ci réew mi maanaam bëri na genn xeetu bëri goo xam ne Sénégal moom bu doon aw jën la ñu ne bopp bee yàqu li doy waar ci réew mi maanaam scandale yi ci njobbaxtalu nguur gi foofee la scandale am nag maanaam tooxi doona yi yéenekaay gi du l'Observateur nee na trésor public foofe nag lu toll si ñeenti milliards la ñu fa daal di ngembal la ñu fa détourné journal bi nee na procureur jamono ji nag moom mandat dépôt lay wax libération yéenekaay daal di xëy nag ci trésor public ak xaalis boobee nan lañ ñu ko ngembalee yéenekaay gi nee na kii ñu wax nag Abdou Aziz Diop kookee percepteur la dëkk Mbàkke li ñu koy joxar bi baaraamu tuuma toll na ci deux milliards quatre cent cinquante neuf millions trois cent soixante onze francs beneen bi di Mohamed Ndiaye dëkk saint Yewwi kooke nag ñoo ko jox xar bi baaraamu tuuma lu toll ci deux milliards vingt cinq millions yu toftale cinq cent soixante cinq francs yéen a kaay gi nee na mbir moomee nag doy na war yéen a gi di Sud Quotidien xëy ci campagne de vaccination poliomyélite bi nga xam ne ministère de la santé moo ko doon def ci biir réew mi yépp journal bi nee na campagne boobee nag mën nañoo jàpp ne dafa lajjee ndax nag bëri na nag ay xale yu bare bare bare bare yoo xam ne ba léegi maanaam kenn ñëkku leen ci lu jëm ci wàllum poliomyélite yéen a kaay gi di réew mi Quotidien maar daana ñu koy bàyyi ni ki démb mu ñibbi kërëma Mamadou Sall député benn Bokk Yaakaar yóbbu nañ ko sa kasu ba Sadio Dansokho moom tim yóbbu nañ ko ni ki démb sa kasu ba journal bi nee na nag ki nga xam ne mooy Boubacar Biaye moom ba léegi maanaam good fine Boubacar daal moom kenn convoqué wu ko yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa nag Gaston Mbengue muy tontu ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye ndax Aziz Ndiaye keroog dafa wax ne Balla Gaye numéro 2 du bëre ak Boy Niang Gaston Mbengue nee na Aziz Ndiaye day wax rek man maay décider Balla Gaye 2 dina bëre ak Boy Niang 2 ci nii wala ci